allahuma la sahlana ila ma jaaltuhu lana sahlan subhanaka in shita jaalta saba sala allahuma la ilma lana ila ma allamtana innaka taalimun hakim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mbokki yi fi teew yëpp ci turu sëñ Xaadim docteur mu fi nekkal suñ teewal suñ Moustapha Absa ñu ngi ndokkeel ñëpp ñu ngi ñaan ñëpp jàmm ñi nga am mbégte ci teew fii ci dëkk bi teew ci bas bi teew ci njaboot gi nga am mbégte ci kilifa kàddu kàddu yi kàddu yi sëñ Xaadim la dama koy tàmbalee rek jox ko mu mu tëj may wax ne tey moom fu ñëw la soxla sedd na jàpp naa itam sëñ mu dàbbale mi tax ñu daje fii nga kanam xel bu sedd sëriñ Fallou yi moom dëkk bi la moom kër gi ak kanam xel bu sedd na waaw daal lii ko sedd soxla dara du sedd soxla soññ bu baax a baax rek gën a góor góorgóorlu lii ngeen def taxawal ko ngeen jàpp ci ba bañ dellu ginnaaw ndax lii kat bu tasee mara di taali dootu leen taxawal dara dara lu taxaw lii tàmbali tàmbaloon na bu yàgg maa ngi fàttaliku 1971 waa kër sëñ Cheikh Awa Balla ak waa kër si mu daanañ daje weer bu nekk ñu daje kër waaye ba fam bam bam ba mu tasee mënu mënuñoo fexe ba taxaw taxawalaat leneen kon yéen lii ngeen taxawal dangeen jàpp kenn ko def def ko yëfam lii moom kenn ku nekk xam ne liggéeyu sëñ bi liggéeyu sëñ bi daa lu ko sëñ bi jegaleel la du te du lu te jàpp naa ne sëñ bi dafa jàpp na ci ndax dañu wax ne liir liir bu mënee nga war moo tax ko jàppale xam naa sëñ bi daa balla loxoom loxoom ci biir ndax ànd gu gu dëggu mm. ànd gu am pëstéef dafa jafe ci réew mi na yàq dañoo bari saa boo yëkkatee lu baax rek luy boole mujj luy boole bokk am ñu wax dañu taxaw temm ci yàq loolee waaye lii moom am naa ci njort rafet ne lenn lu jóge ci yàq si ko amul lenn lu jóge ci biti yàq ko mënut a nekk. ndax sëñ Tuubaa moo doon Simoura Balla ba demee Daaru nga da nga toog jotu lu mat a jañ danaa ko jañ lu mat a ñor kon képp ku ñu bay ba ba yàq seen ànd bii. suñ too moo ko moo ko jël boppam ndax liggéey bi suñu mën a bàll da ngeen ci góorgóorlu lu baax ndax moom moomutu leen seen bopp te ngeen jàppante respectante fexe ba doon ay nawle te bañ a doon ay moroom moroom moom lu mu dugg mu yàqu kenn ku nekk ka ko féete mag na ko jox ci ruum mag kenn ku nekk kay rakkam na ko jox ci ruum rakk waa kër sëñ Fall Astou Dieye mbirum sëñ Fallou xëju xëju jën jëm waaye da koy séddale da koy partagé bu kenn ku nekk indi leen sëñ Fall li sëñ Fall def ci yow mu jëm sëñ Fallou wax ko sëñ Basiru absolu la même chose bu kenn ku nekk indi li sëñ Basiru jox ci yow mu sëñ Basiru wax ko si ko sa gànnaar wax ko si ko sa absolu wax lépp bu mu jëm sëñ Modou Awa Balla kon da ngeen tey jataay bi sëñ Modou ngi fi jataay bi sëñ Modou Awa Balla jëmam ngi fi da ngeen jàpp baax kenn ku nekk li mu gën mooy fexe ba gën ci bokkam waaw yonent bi daf ne woon ki gën ci yéen mooy gën ci bokkam ne man maa gën ci samay bokk loolu Sëriñ Tuubaa bi ñoo dëggal na ko moom wax Sëriñ Tuubaa wax na lu mel noonu mais bu nekkee ci njaareem ci ci gànnaar benn bi dañu dem ba li jëfandikoo jeex ñu ne nañ ndax baraay am na fi ñu dem seet ne baraay bi dafa jeex sëñ bi laaj ne lu fi nekk ñu ne ko fi nekk mu ne dañ ko def ay ngëb jox ko ni ñu ñu yëyu ko biñ ko partagé am koo xam ne xaal da ko jàpp mu ñëw ci sëñ bi ne ko man ne sëñ bi jaaxal nga ma sëñ Tuubaa ne ko lu ma la jaaxal mu ko ba demee Sénégal ci kër yi ba fàtte mais ak yàpp yàpp tubaar la la ñuy reere ba dama ko kër kër si Anta sark ja cere lay yàpp tubaar la ñuy reere kër ma sàmba noonu kër yow nga nekk fi ma jaaxale sëñ Tuubaa ne ko diw kooku ne ko Mbàkke mu ne ko ñam lu mu neex ñàkk soxla ko dàq loolu ñu yor soxlu ma ko ndax moo ko soxla du ci jot maa ko mu ba ma doom bëgguma ko ma jox ko ko ma jox leen ko te ñoom ñoom amuñu sikki sàkk ci ne jëluñ ko ci suñu moroom te sëli ni ko man damaa doon yonent bi lépp man defoon ba gën ñëpp gën ci bokkam noonu laa bëgg def ba gën ci samay bokk may tam moo tax ma defal defal leen lii ne ko nag li ma leen jox li ma leen jox ak li ma dese xam nga nu mel ne ko nu mel dafa ne da nga jël as kook daf ca géej gi ndax tàng ca ndax ku ñëw sa ginnaaw dana dana xam ne géej gi ndox kook si ndox manqué na ci mu ko déedéet mu ne ko li ma dese li ma jox noonu la demee kon kenn ku kenn ku yëkkati li gën di téye mooy fexe bay taxaw ay bokkam fexe ba amal njariñ ay bokkam boo ko defee àdd bi daan daan yàgg kii ngeen di roy monsieur Mourad Balla def na loolee waaw taxaw ay bokkam baax na ci ay bokkam te ba ñu jox misaal rek kër gi seen dox dox dëkk moo ko moomoon kër ba nga ko jox seen dox génnu daraam ba ne seen demal dëkk fa dafa ne bagage yi mën ne ko bagage ci kër gi la bokk kon ko baax na ci bokkam amul kenn koo xam ne doomi Cerno de ko xam ne yëkkut yëkkut ab dongaam jox la ku dem bay may nit foo ko ci baax ci baax mën a yem may na ko dem donga kon baax baax na ci boppam kon yéen na ngeen baax ci seen bopp kenn ku nekk la muy def ci lu baax na ko tàmbale ci boppam bu ko defee ànd di benn benn li ma waxoon sànq dama koy waxaat mooy lii moom du yàqu ci biti mukk ndax si mi daan ko aar du yàqu mukk ci biti biti ndax sëñ Tuubaa mooy jaaj ku fukk yàq moo moo moo lay puus kon na ngeen jàpp def ko mu seen farata dañuy wax ne barke dafa du ma gaaw a ñëw ci barab ñu ne ko lu tax man xaw ma dal dalli amul benn kër gi si ma abal ko ne barke du du du du dafa jóg moo xam Kara Thiel la moo xam yabal la moo xam Sar Sal moo xam fi moo xam fi Daaru Rahman la fii barke sax na fi te du fi toxi mukk ndax suñu mënoo ko liggéey da ngeen góorgóorlu te jàppante te respectante kenn ku nekk kay sa kilifa nañ ko def kilifa bu ko defee jàmm ne béy kon sëñ Xaadim jàpp naa ne wax ji loolu mu ci ëppoon solo ah, li jël si Abdoulaye doon àggale ko dama lu ubbi rek ndax bi daal di saf saf jotaaya ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu daayira bi nga xam ne mooy daayiratul abraar te lëkkale sa sëñ Modou Awa Balla mooy kàddu yu cant ak kàddu yu ngërëm yoo xam ne dañ koy sant sëñ Modou Awa Balla ndax wóor nanu ne defal nanu loo xam ne jomb nanu kon dañ koy sant bu baax a baax di sant suñu waajur yi nekk suñu kanam tàmbalee ko sëñ Moustapha mi xalifa bi ak sëriñ Xaadim ak njaboot gi yëpp di fàttaliku ñu fi bàyyi ko te di leen ñaanal yàlla dolli seeni leer lii nag tax ñu taxawal ko mooy xam ne liñ bokk mënuñ koo seddoo te mooy sëñ mu daw bàll te ku ne xaj na ci te defal na loo xam ne kenn ku ne mën ngaa toog fa toog fa nga nekk ndax sa waajur sëñ mu sédd na ko te lam ko sédd du yàq waaye nag xam ne buñ boolee lépp ànd lëggeel sëñ mu daw bàll dana gën a jàppane ci noonu moo tax mu boole suñ bopp fas yéene ànd lëggeel sëñ mu daw bàll duñ tàqalikoo mukk ndax suñu waajur yi dawuñu tàqalikoo dañ daan ànd nekk benn foo leen foo gis kenn gis ka ci des kon nun loolu lañ fas yéene incha allahu rabbi lépp loo xam daal lu sëñ Muudu suuxat la danañ fas yéene taxaw ca di ko aar ñun aar rek la ñuy def ndax sëñ Muudu suuxat na te dana jebbi jëmbat na te dana jebbi te lu mu samp kenn mënu koo daaneel ñun aar rek la ñuy def fas nañ yéene taxaw aar ko incha bii di ñëw yi sar-sar lañ koy defee niñ ko defee fii ba ca topp ñu defe ko feneen kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla defal tawféex ak taysiir suñu xol bi li ci nekk muy ak taalu bi te sëñ Muudu gënal lu am yàlla nu ko yàlla sàmmal te aaral na ko asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi maa ngi jégalu bu baax sëñ xaadim ak sëñ samat Samad sëriñ Sidi ñoo ngi jégalu ndax yéen sëñ Fallou sa Dieye rek lañ leen di xoole te tey jii bu fi nekkoon bu joxewuloon ndigal ngi jël kàddu duñ ko duñ ko jël waaye nag kàddu ngeen jox ndigal sëñ Basiru moo tax mu ne man naa wax waaye kon duñ fi jël kàddu waaye nag ci turam moom sëñ Basiru mi nga xam ne mooy sëñ Fallou dañ koy ñaanal rek mu yàgg fi loolu te wér dama ko koy wax jamono ju nekk dama naan ko man nii may dunde moom yow nga yàgg fi te wér rek moo baax ci man te dañ ko koo yéene ñoo ngi koy ñaanal yàlla ak bi ci barki sëñ Touba yàlla wéral ko te yàggal ko fi te naal wu mu bëgg a naalal baayam rek suñu borom dimbale ko ci ba mu def ko ndax yàqaluñu dara sëñ bi ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu njabootu sëñ Modou Awa Balla gii fi nekk xanaa li ñuy ñaan rek ku nekk foo nekk nga ñaanal sëñ Moustapha Habsa yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ak njaboot sëñ Modaw Balla bi may ñaan ku nekk ci baas bi rek nga tudd ko ci saw làmmiñ ne sëñ Moustapha Habsa yàlla na fi yàgg te wér ak njabootu sëñ Modaw Balla bi ginnaaw loolu it ci kàddu sëñ bi mu ne ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax tey jii dey lii ñu am yombut ndax sëñ Fallou fa mu tëdd xolam sedd na lool ndax moom bëggul woon lu dul mu Modaw Balla buñ demee nag ba njabootu sëñ Modou Awa Balla gépp ñëw teew fii ci këram gi amuñu lu ëpp lii maa ngi koy wax sëñ Bass léegi ma ne ko ñun de buñ ñu mënoon a may at mu nekk ñu defee ko fii àttan nañ ko kon at mu nekk ngeen ñëw defe ko fi ndax xol yaa ngi fi te taalibe gaa ngi fi te ñun amuñu lu sëñ Modou Awa Balla te daja jataay bi boo ko xoolee xam ne ñi fi war na nekk ñoo fi nekk ndax bu sëñ Fallou nekkoon sëriñ Moustapha ak képp ku sëñ Modou Awa Balla jur nii la fiy nekk ñun ñu am sensu nag njab sët sëñ Modou Awa Balla yëpp nekk fi ba noppi njabootu sëñ Modou Awa loolu yombut di sant bu baax nag suñu waay jur jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi nga xam ne liggéey bii tamit ñoo ko liggéey tey ba mag si fii di leen ñaanal yàlla tamit ñu gën fee yàgg lool te wér di sant tamit njabootu sëñ Fallou sa jéegi ndax taxawaay bi ñu taxaw dem naa ba gis sëñ bas mii sax tey ak gone yi ku nekk di gàddu ay palaat di teg ngir teraanga jii ñu bëgg teral waa sëñ Modou Awa Balla mat di sant tamit particulièrement soxna Ndeye Mbacke ndax moom tey lépp loo xam ne rek euh, def na ko ci bis bi moom ñeenti fan a ngi nii yoo xam ne nelawut loolu moom maa koy seereel te ba ñuy joxe ci waa kër gi la góor ñu joxe lu ko ëpp sax la joxe ba noppi toog def li mu def kon ñoo ngi koy sant di sant ay rakkam ak ay magam ak njaboot sëñ Fallou gépp ndax keroog ñu waxee bis bi bi sëñ Bass wootee ba ne ku nekk loo man ba ku nekk waxee la nga man rek ci la bis waaye nag ñu am taalibe bu mag boo xam ne moom kenn mënu koo tudd te te tuddoo kër gi muy sëñ ma faal faal jàpp gi nga xam ne jàpp na ko ci bis bi ñoo ngi ko ciy sant bu baax sëñ xaadim nga ñaanal ko ak sa xarit Basiiru Sàll ak waa daayira dexle bii nga xam ne tamit keroog bañ leen ko waxee dañoo jënd aw nag daal di indi ñoom na leen na leen ñaanal ñoom ñëpp yow yaa fi suñ saf suñ suñ fàllu tey kon nag ku def lu baax ku nekk li nga ci jublu mooy nit ñi dégg ko te ñoom def nañ ko te yéen fii suñ fàllu na ngeen leen ñaanal yàlla jàppale leen te nga ñaanal sëñ mbës mii ak njabootu sëñ fàllu gépp ñu yàgg fi lool te wér te naa liñ bëgg a liñ ñaanal sëñ fàllu suñu borom dimbali ñu bañ àggale ko ndax fas nañoo am jom ju toll ne lépp loo xam ne sëñ fàllu bëggoon na ko fi bëgg koo def ci dëkk bi fas yéene nañ ko fay def te yéen yéen ñu si mën a ñaanal ndax sëñ Abdou Samane mii daa àggoon ak sëñ fàllu foo xam ne saa yu xëyee ñun su jafee ba dara réeroo sax sëñ fàllu feeñu ko ne ko waxal ko ne nangam ak nangam mu ñëw dajale ñu ne ñu ah sëñ fàllu kat nee na kon nag ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant jigéen ñi gis ngeen ni ñu ñëwee ñoom ñëpp ndax ñoom dañoo am solo ci mbir mi waaye tamit di wax xale yi ne leen ñun góorgóorlu nañ bàgg si fi ñu agsi waaye yéen ñi nga xam ne yéen ay xale yi jël relais bi li ngeen def mooy dangeen di fexe ba àdduna ak àllaaxira dañuy ànd ngeen fexe ba àdduna lépp lu ci jëwatee luñ ciy war a defar ci daarul muxti na ngeen ciy bokk ndax bu ngeen doonee benn de jëmandoo fenn fu ngeen jëm fa ñëpp di jëm ndax yéen xaju leen ci dara waaye bu ngeen réeroo kii jaar fee kii jaar fee du ngeen ma def dara kon nag maa ngi leen di ñaan yéen ndaw ñi lépp lu xewati ci Daaru si muy àddina muy leneen na ngeen fexe ba feeñ ci te bu ngeen ci feeñ na ngeen ànd te bu ngeen àndee fu ngeen jëm fa lépp jëm te loolu dafa am solo ndax dëkk boo ca dëkkee da nga caa war def ak di dindi te sëñ mu daw Balla foo ko génne mu jeex tàkk kon nag na ngeen jàppante te góorlu ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi salatan wa salaaman wa barakatan tahaba lana biha saadatan la shaqawata ma daha hu akbaru dan min ka la sota ma daha rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli barke cheikhul xadim mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd di leen ziyaare maa ngi leen di nuyu nuyoo bu ma jëlee ci Cheikh Moustapha Al suñu sëriñ suñu yaakaar suñu kilifa balaa may ñëw fii dem naa ci moom bi ma tàggoog moom ak bi ma fi ñëwee ma tudd 30 minutes ndax bëgguma fi woon a ñëw di wax ci baatam te gisuma ko loo tax ma dem fa xamal naa ko itam ne ko daayira bi dañoo bëgg at mu ne ñu dem ci dëkk bu sëñ Modaw Balla sañcoon ne ko daaw Karaacil lañ demoon ren ñu ngi Daaru Rahman mu bëgg lool ne ma loolu day jëf ju baax la ju rafet la na ngeen ko fonk te saxal ko bi mu waxee ba ñaan bi ñu génnee sëñ Modou Mbacké sàmm dafa daanu tekki montaram jox ma waaw kon kon kon ñu sant yàlla bu baax ndax sëñ bi ñu bari dañu defe ne euh, am na lu ko ump wala lu mu fàtte waaye da boo ko waxee lu ko ñor boo ko waxee ko ñor lay tontu da nga xam ne kii fa mu ne woon bu yàgg fa la nekk ba tey sono ñun ñëpp ñu maase ñaanal ko suñ borom bàyyi ko fi te may ko wér sëñ Abdul wax ne wér gu euh, dund gu ànd day metti kon nag ñaan suñu borom bàyyi ko fi te may ko wér euh, euh, te te ndax ngërëm moom ci su suñ ci la suñ lépp nekk waaw suñu sag la suñu suñu suñu wéeru wéeruwaay la ndax fi ndoll moom lu mu bëgg lu mu bëgg rek suñu borom defal ko ko loolu ñu ko am bëriwut ko am comme kilifa bëriwut comme yàlla jox nañu ko nag ñun ci baaxu sëñ Modou Balla ñu ñaanal ko bu baax suñu borom bàyyi ko fi waaw nuyu njaboot gi yëpp njaboot sëñ Modou Balla gépp waaw di leen jot ñu nuyoo sëriñ bi ak ñaanam di fàttali ko sëñ Fallou waaw borom pàkk bii waaw waaw ku baax man de li ma ko amee ci bor mënuma koo fay benn képp laa leen ciy nettali bi may dem Kaolack booba sëñ Modou Bousso mi mii feeñagut booba mi nga waaj a gane àdduna nu ànd dem euh, Njaareem ab 505 la yor moo koy dawalal boppam mu ne ma dégg naa dañ laa affecté Kaolack ma ne ko waaw mu ne ma booy dem danaa wax sëñ sëñ Moustapha ñun ñëpp nu yóbbu la ndax nitu tubaab li mu gis rek la xam te buñ la gisee sa mbubb rek dañuy laaj dañ lay daal di yàpp keroog bi ñu may yóbbu juróomi oto mu ñoo ma yóbbu sëñ bi sëñ sabaa sëñ Fallou Baye Cheikh Khady sëñ Koso Gànnaar mbaay Mbacké gouverneur lañ ma njëkk a yóbbu présenté ma ko doon maa yóbbu ci directeur hôpital daal di woo daayiraam yi ne foofu ku sant Taal ak Mbay Caam ne leen kii sama rakka booy naa leen ak moom waaw loolu lenn képp la ci lim ma defal waaw te ñëpp la ku na la kon ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy fàttaliku di ko sant am na ñaari ñaari yoon yu nga xam ne fii maa fi jiiti tabaski ngir sant si ko waaw waaw baax ah, lool daneef ñaan ñu ngi koy ñu ngi koy ziare bu baax di ñaan yàlla yokk yokk leeram yóbbu ko ci àjjana ya gën yokk yóbbuwaat ko ci àjjana ya gën a kawe di ñaanal njabootam gii mu fi bàyyi ci njiitul sëñ Bas euh, yàlla sàmm leen te musal leen te te te yokk seen barkeeg seen lépp waaw <coughs> daayira bi nag man damaa yaakaar ne ci sama gis-gis euh, te njortul ma njuug la njortul ma njuug ma njuug daa dem ci bi ay naar dóor ko bi mu ñibbisee nag ne ne laaj ko fa mu damaa génn dem ci xur waaye xur wi de yaakaar naa ko fa ne da fa gis ay naar te fekk moom naa di jàpp nañ ko ba dóor waaye li ma leen di wax njortu ma njuug la xam nga sëñ Modou Awa Balla li ko yàlla yenn dafa diis waaw borom daaru dafa summiku ci moom sëñ Mor Mbay Siise nee na man moo ma ko wax de nee na dafa gént gis borom daaru mooti mu ne ko li ma doon wut ci yàlla ak yoon ci bekk sëñ Touba am naa ko nanga ma bindalub jawot li ma yoroon lépp jox naa ko mu daw balla nee na weer ak genn lañ ci teg borom daaru nelaw loolu nag yan la bu diis bu nga xam ne ah, ah, day day lu nga xam ne borom daaru daa doyloo sëñ mu daw balla ba dénk ko ko moom dong waaye lu ñëpp bokk la waaye nag bari na lu ñëpp bokk te benn loxo ko yor fi kaaba gi li muy rëy rëy Arabie Saoudite dong la nekk caabi kaaba gi ñëpp a ko bokk waaye banu ba ñoo ko yor depuis Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax dara mbooloo danañ ko bokk waaye kenn na ko yor wala ñenn na ko yor waaw kon li sëñ Modou Awa Balla yor ci lu maam Cerno Birahim moom daanaka léppam la sëñ Abbas wax na ko keroog nee na léppi sëñ Modou lépp borom daa doon ci loxol sëñ Modou Awa Balla fu fi waaye nekk moom nga fa nekkal loolu nag dafa aajowoo sàmm sëñ Ousmane wax na ko léegi mm-hmm. yàlla moo ko wax loo seen rol ndax ndax ndax ni ma ko waxee sëñ Modou Awa Balla bu bu génnee ci Thierno bi la ndax Thierno summiku ci moom waaw ndax bi bi borom daaru yabalee ay doomam yu mag ne leen dem leen njaareem jébbalu ci sëñ Touba yoonu murit loo jege-jege fi léegi jébbalu woo bokkoo ci sëñ moom bi mu demee ba ba njaat dafa dëpp bi ko borom daaru gisee dafa tiit ne ko moo lu xew mu ne ko damaa bëgg a yem ci yow ndax doy nga ma waaw gën borom daaru nga xam ne boroom daal daana jëfandiku ba noppi bu bu raxasoo mu jox ko boobu mu fomp ci alaaj sëñ Sall yàlla na ko yàlla yokk leer nee na borom sëñ Modou Awa Balla daan peese gerteem sotti ci gerte boroom daaru doora doora dem wuti lum dunde ji nee na ñaari mbubb la daan am lu ñu fóot ak même sol képp laan yor dégg nga euh, borom daaru woo ko moom sëñ Modou Awa Balla mu ñëw mu jox ko mungaas mungaas mooy loolu ñuy dindee dëkk ne ko Modou mën ngaa jël mu mi ndax tool yee taxoon ma wut ko te dox nga tool yi waaw yéen ñun ñëpp kenn ku nekk war ngaa fexe am mu ci sa kilifa waaw kay sa kilifa nga dem ba mu woole ne la jëlal mungaas ngaas mi maanaam jàppal ne noppal nga ma loolu moo tax sëñ Moustapha Gueye Yarawaay nee na bi ñu bis bi borom daaru indee sañ mu daaw bàlla ci sëñ tubaa njaareem fa la ko fekk moom ko ci làmmiñam nee na euh, borom sëñ tubaa moom ak Cheikh Awa Balla wan nawlef wan mooy xam na lu ne ak sëñ Modou Habib wan nawlef sëñ Modou Habib juróom-benn fukkaa la ko sëñ ak ñaari fulku moom ak sëñ wan nawlef wax a wax a wax daal di ne daa suñu wax de daal di ne sëñ sëñ sëñ Cheikh Awa sañ sëñ Bachirou la la nuyoo la nuroo nuróoloon ci dox yi doxinu àdduna xam nga ñoo bokk dëkk bu nañu wut fa kër ak yu mel noonu nee bi ma waxee bàggal sëñ Tuubaa ne ko Ceerno xam-xam baax na lool waaye fii suñu borom def na fi lu gën xam-xam te dinaa ko defal waaw nga xam ne boroom daaru moom euh, euh, samp gim ko samp day samp gu dëgër googu sampit la samp sëñ Moustapha sax waaw sëñ Moustapha lim liggéeyal euh, borom daaru képp doy na ko ndam dëkk bi daal mu sigee bu nee bu dee benn bopp benn benn benn làmmiñ benn kilifa yàlla jëmmam la waaw su gisoon boppam beru su gisoon boppam beru dana dana taqale nit ñi te loolu am na fi ci yoonu murid ñu dul jeex ma xam naa ko nga xam ne bi bi baayam nelawee rakki baayam wuutu ko moom mu wuutu baayam am na juróom-ñaaraat du nuyu rakki baayam te murid la mi ngi fi ñëpp xam ko mais sëñ Moustapha bi te sëñ Moustapha njëkk a jébbalu sëñ Abdou Khoudoss ci setu te njëbbalam ëpp doole yépp ndax booba dëkk bi ku am 40 ans sëñ mu daw nga xam waaye xamoo borom daal te boobu mooy sëñ mu daw balla kon bu ber dana yóbbu lu bari waaw waaw waaw boobu nag yéen moom mii koy sàmm nii yéen la koy sàmmal yéen a ko war a yor ëllëg ak si biir yéen a ko war a sàmmal borom daalu sàmmal ko sëñ Tuubaa sàmmal ko lislaam sàmmal ko diine ji mais sàmm gi mi ngi ci kaw ngeen maslaak ñépp te du ngeen bàkku bàkku baaxut am na loolu bu la ko yàlla defalee boo bàkkoo boole ci nit ñi duñ la attan waaw du njàmbaar borom sëñ Modou Awa daaru xam mbëggeel am ci moom ak cofeel gi mu yërëm ko bëgg ko mu di jarbaatam doomam la di jarbaatam ndax maam Awa Balla bàyyi maam Awa Balla ak maam Faati Isaa bokk ndey ak baay te maam Awa Balla bopp ak yàlla daan togg loolu tax borom daal yërëm ko summi ko ci moom waaye lim summi ko ci moom ñëpp ko bokk loolu nag yéen li sëñ Ousmane wax léegi yéen a ko war a sàmm mais sàmm ko ci kaw ñeneen ñit ngeen xam ne am nañ ci wàll waaye dañu war a jaar ci yéen waaw ndax loolu la yàlla dogal loolu mooy seen mooy seen mooy seen mooy seen mooy seen mooy seen mooy loolu damaa gëm ne yàlla mi bëgg dara du yàqu ci loolu ndax yëfi sëñ Tuubaa du yàqu sëñ Moustapha nee na yëfi sëñ Touba da nga cay jéem a defar ba defaroo ca fekk li nga doon defar moom defaruñu ba pare wala nga di ca jéem a yàq ba yàqoo ca te la nga doon jéem a yàq du yàqu ni ko sëñ Samat waxee léegi lii du yàqu mukk ndax liggéeyu yàlla la liggéeyu yàlla la man sama bopp laa ko man ku ma ne woon da nga dem di jullee ay néew ak dégg nga lijjanti aw nit du ma ko gëm mën na maa des Arabie Saoudite wala ma des France wala Amérique nekk député wala ministre wala ambassadeur nekk de wóote fii laay mujj tànnuma ko te amul démission mu amul démission ma démission waaye amul démission doo ba dee rek waaw loolu loolu euh, euh, te sant naa yàlla ci ne yàlla mi koy sàmmlu sëñ Moustapha mi mu ko jox ci takku ci loxoom doyloo ma ba ne ma am bant bi defal ma ko ci nii nangam nangam ndax loolu rëy la ndax man naa ni may ni ma moo tax ni ma fonkee julli ak or ak jàng alquran noonu laa fonkee liggéey bi duma ma ci tricher mukk waaw te jàppewuma ko ah, ndam jàppe ma ko dara lu may moyen bu ma yàlla dimbalee la ngir jàmm yàlla ma man cee am tiyaaba ju nga xam ne dana wàcc ba ci sama ku ma xam ku ma jege rek mën nga caa jëriñu noonu laa ko jàppe waaw moo tax du ma ci tricher te jaral na ma lu ne jaral na ma sama temps jaral na ma sama alal aw ma bu ma bu ma sëñ Moussa wax xasee wax dara aw ma tuma soxla lu may loola am su ma ne woon demal tabbi ca teen ba damay du ma ci tabbi de waaye danaa toog di ko wër rek déglu ba xam dana changé du ma dem nag taabi ci moom loolu ma ko def waaye nag du ma ko ne du ma ko def de damay dem ba ca ba ca wet teen ba may wër rek naan leen changé gu ko ah il faut wax dëgg il faut wax dëgg waaw waaw ah? <laughs> wala sedd bi loolu tamit waxtaan bi gis nga gis nga gis nga gis nga ma continuer i samat boobaa yow yaay waxtaan ak mu dégg nga ko nga ne ko rek changé ko ndax góor si ba nga fële waaw moo tax euh, daay te daayira bi tur wi dafa neex daayiratul abraar al abraar mooy ñu baax waaw loolu dafa loolu tur yàlla dencal abraar waaw daayira man bi bi ñu ko tuddee léegi dama tiit abraar xay loolu bokk ci rek daat daat na lay dugal ci abraar yi waaw waaw moo tax ni sëñ Samat wax léegi na ngeen nit day fonk kilifaam dama dem ab rob mu ngo alhamdulilah alhamdulilah waaw xam nga xam nga sëñ Modou Awa Balla léppam dafa mat waaw xam nga kii nooyam noo noo jokkoon bokkoon di jàng moom yàlla dañoo boole yàgg na depuis mbul kay la waaw ñoo bokkoon benn kër sama kër lañ nekkoon moom ak suñu Cheikh Karam waaye moom it suñ boroom cër bii sëñ Modou Awa Balla am ci ci daaru mooti te xam-xam mun munu koo xam-xamay teeñ ba waaw sëñ Bala dafa maa wax ma sa wax ne ma yenn bu ne teeñ baa ci ëpp doole te teeñ bi mooy xam-xam loolu tax suñu boroom génne woon ko soxna yi te ngeen a déglu dangeen déglu ndax ndax. ñu maase déglu sëriñ bi la nañ déglu. ma ma li ma leen di wax nag ngistaluma tappalewuma waxuma ngir ki naan daa wax ni waxuma ko de li may wax mooy li ma gëm lii may wax ni mooy li ma gëm man mu kàllaf laa mag laa waaw âge bi ma am bu ma doxee di wax caaxaan ah kon xanaa wératuma li may wax moom laa gëm te mooy li nekk de billaahi wallaahi tallaahi ni Mouhamed nekkee kenn sëñ Touba nekkul kenn Thierno Ibrahima nekkul kenn ci yoonu murit noonu la sëñ Modou Awa Balla nekkee kenn la nekkee kenn waaw te dara fi ndollu kenn mëna dara te teraanga ji day yokk ba àdduna addunay tukki waaw dara du manqué waaw nit ñi mujj ñëw barki démb sax alhamdulilah noo ngi sant yàlla man ñaar fukki at am naa ko ci àll bi ñaar fukki at am naa ko ci àll bi waaye fi ndoolu maa ngi sant yàlla bu baax kenn du ma may dépasse kenn du ma abal ku ma yónni waaw te loolu moo ma ko fàkkul na ngeen góorgóorlu bu baax li ci des daal mooy góorgóorlu waaw li ko sëñ Muntaxa waxee góorgóorlu góorgóorlu bi nag mi ngi ci góorgóorlu ci lu baax góorgóorlu ci jàmm yàlla góorgóorlu ci njub góorgóorlu ci buñ la laajee kii mooy kan boo boo jàllee ñu ne kii mooy kan ñu ne kii ah, la war a mel waaye boo jàllee ñu ne kii kan ñu ne ñu ne ah kii lii lii nu mu ko defee loolu dara jëru ko bu boobaa rusloo nga sa bopp rusloo sëñ moo daaw bàll rusloo nun say bokk yàlla nañu ci àlla musal nun ñëpp waaw nañ leen góorgóorlu bu baax waaw defar waat bu baax defar suñu bopp suñ kilifa sëñ Moussa Absa kenn mënu ko reproché dara waaw ñëpp ko respecté ci yoonu murid ñëpp tout le monde waaw sëñ sëñ daan wax ne lu ma wax moo ko alxuraanul karim laa yemale te mooy suñu royukaay du suñu morom waaye suñu nawle la sëñ sëñ sëñ sëñ Modou Bousso Dieng nee na mbakke mbakke amul gënante magante moo ci am ne doomu sëñ Tuubaa du suñuy morom waaye suñuy nawle lañ sa nawle mooy ki nga xam ne lu mu war a bëgg ci lu baax war nga ko bëgg lu mu bañ ci war nga koo bañ sëñ bi li muy baax baax ak li sori sori ci yàlla dégg nga sunu nawle la waruñoo gën a bëgg lu baax waruñoo gën a bañ lu bon fam ca àgg nag nu mënuñu fa àgg waaye nag ni mu ko bëggee nu di ko ni bëggee la mu bañee leen nu di ko ni bañee waaw te moom kenn yóbbu ko sëñ Moustapha kenn du gouvernement du keneen barki démb bi bi bi ñëwee ci màggal sëñ Modou Awa Balla délégation bi ñu génnee dañ ne laay alhamdulilah ñaari at yëpp mënu noo gis sëñ bi barki sañ Touba waaw te gaa yaa ngi fii rang di di ñaan audience di xaar waaw sama audience bi yëgoo goo ci dara ñaar di ah xam nga góor gi fa yi daa tukki waaw nangam nangam mais sëñ bi moom sëñ bi moom audience bi mu mujj bi mu mujj a dem damaa ñëw mu ne ma man li may wax mu ngi koy dégg de damaa ñëw mu ne ma nit da ay bokkam danañ ko wombat jëme ci lu nga xam ne dana xam ne seen seen seen bopp tax ñu di ko ci wombat te man bëgguma taqali kook suñu samay samay bokk waaye lii ñu may woo man su awuma ci soxla mooy dernière audience bi bu Abdoulaye Wade bi waaw wax bëgguma taqali kook samay bokk waaw kooku amul morom ah amul morom barke sëñ Touba bu ngeen fi bàyyi nag fi laay wax ba suba moom. jërëjëf Mbacke jërëjëf. Euh, euh, ñaa ñaa xam nga fii école la fii tey école la euh, sëñ sëñ Samat joxe na ab dës jàll <laughs> léegi lixlaas lixlaas moom la ñuy ñaanal ku ku faatu. sëriñ bi bi mu nee mbaki Mbacke yi xam nga sëñ Touba dañ ko suñu borom dañ ko woon. Euh, sa liggéey bi doo ci mën a dem fileeg maam sëñ Bosoobee ngi dund fileeg yaa ngi tuubaa aaral nañ la Touba si maam sëñ Bosoobee yàlla da ko rus bi mu demee Mbàkke Baari ci bi bi mu nekk xam kon génn na Touba nga Mbàkke Baari ci biir nekk Mbàkke Baari gi ci la maam sëñ Bosoobee nelaw bi mu ko déggee dane nañ ko jàngal Faatiha ak ñeent fukki Ixlaas daal di ne ku kuñ leen waxati ko faatu na ngeen ko jàngal Faatiha ak ñeent fukki Ixlaas dégg naa ci Moustapha sëñ Moustapha am sëñ Abdou Xaadir te mu ne sëñ nee na bu yees Mhm. faatiha ak ñeent fukki lixlaas néew bu yàgg faatiha ak fukki lixlaas ak benn waaye ñu li ñu bind ñoom ci irwaa u nadim mooy faatiha ak ñeent fukki lixlaas la Sëriñ Tuubaa wax ne ku ñu leen wax ne nelaw na na ngeen ko jàng kon nañ jàng loolu yéene leen ko ñoom ñooñu ñëpp euh, yàlla yokk seen ña nga ci àjjana ñu yóbbu leen yeneen àjjana ndax àjjana ay ay àjjana la de nee nañ àjjana diggante àjjana ak morooma mel na ni nii ngay xoole bi biddiw yi mhm. na àjjana yooyu noonu lañ sorentee nii nii nu biddiw yi yenn àjjana yi noonu lañ noonu lañ noonu أعطنا كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاح بالله فتح وهاب يا رزاق يا مالك إنا فتحنا لك فرمل مسرور من الله لا ملاك ولا هم لا فريت ولا نعم لا قليل ولا مريض لا شفيت ولا حاجة من هوائي الدنيا ولا لا مجانا نور تهدي ورحمة تنصرها شدة تصرفها أو معافاة تمن بها ولهي عافية من كل ولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سلام allahuma salli ala sayidina muhammad alhabib almahbub shafin ala mufrij alkurub allahuma salli ala sayidina muhammad albab almaftuh salatan tuajilu lana biha fatha bab alfurub allahuma salli wa sallim wa barik salatan turdik wa turdik wa tarda watama bana akhur wala jala jamil balaya wala kari وتثبت بها جميع الخير وجعلنا عليه وانا اتمنى اتنا بسرة يمحو له ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب يا ماهي يا ماهي يا ماهي يا ماهي يا دائم يا دائم يا دائم ربنا اتنا في الدنيا حسنه allahumma inna dannuuni abdaka wa nabika daaka li durun asaabahu wa naadaaka min batni xuuti laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu tafsirnaa wa najjanaa min al-xatar inni aqulu kama qaala yunus alayhi salaam laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu mina az-zaalimiin laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu mina az-zaalimiin fastajib lii kama stajabta li yunus alayhi salaam wa najjinii min al-ghammi kamaa najjayta اللهم صل على سيدنا تنجينا بها من جميع الاهوال اللهم صل على سيدنا تنجينا بها من جميع الاهوال قل من ينجيكم من سلمات البر والبحر تدعون وتدعون صوتا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين xaqatul asada wal asada wal xayta wal xarisa bi xaq bi alfi alfi la hawla wala quwata illa billah ba seek fi ko salaaman xool dama dama salaam salaam wa makaro wa makar allah wala xayru makirin wa makaro wa makar allah wala xam naan xam na zanna dikra wa inna al xaafisun yàlla yaa xafiisu yaa sal amri yaa fa nafsi wa diini suma ahli walool wa maskani laka wadiat nafsi wa diini suma ahli walool maskani akasa dunyaaya ma axra asbil situuri asli ahmori kathir khuyuri bila kidaya la masturna bi sirkal jamil wa sirkal jamil jal hijaban satiran la yuhtaku bayni wa bayni tawilna amrna sayna amrna wa hablana rushda wa tawfiqi ya wa akhirana ajli wa الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاصوموا فسالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء وتبعوا كفاني الله من الصباح كيد الخلائق الى الروح هو الحفيظ المانع والسلام يحق يا زيل يا ajil hala kama raat na amiqu fi dal hin sunni kama sunta nabi sam sunni kama sunta ربنا آتنا في الدنيا اللهم أنعم علينا بالمغفرة ورحمة ودخول الجنة بغير حساب اللهم أنعم علينا بالمغفرة ورحمة ودخول الجنة اللهم أنعم أن تخزني علي من الضلال وبالحلال أسبت عري أسبت غي كما أسبت غمي موت أسبت فقري لسم يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سنة يا من متى تقول لأمرك خاتب حدا حاجتي بلفظ يا من أمره بين الكاف والنون إسارة سير أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى وارتبنا وقنا وقنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي عظيم دعواهم فيها سبحانك وتحيتهم فيها سلام اخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي اصبنا على سنة ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه في لا يمسنا فانا سبحان ربك رب العزه وسلام الحمد لله رب العالمين خادم الرسول امين يا رب العالمين جرجف مبكي